maam jaara ñi ñëw fekk la nga jënd pompatër ak soble mm-hmm. mu nekk prix ba nga xamante ne ak monte a natt wees na waaw mais yow nooy dundee loolu ak yow lan nga yow ah ngay jooy ak daal moom la def pompiteer cher na soble cher na diw cher na lu musul yokk daal moo yokk ñu ñuy jaay ndékki dañoo sonn dangay ngay jaay woo wàcc doo am dara ñu bëggoon nag ñu wàññi mbir mi ndax cher na torop nit ñi ngi bëgg a dee. gëm ne kañ yow. waa ah, bu wàññeekoo. waaw bu wàññeekoo rek. instant mi ñu toll nii yéen miisu mburu la yéen koy ah lañ koy diwee ñun yokkuñ ba léegi liñ doon jaayee la ñuy jaayee. miisu mburu. miisu mburu lay jar. bu fekkante ne xaaj la liibar bi 100 francs ak li nga siy diw lépp muy 200. su ah. fekkee miis bi nag 400 lay doon li nga siy diw. ba tey moom lañ koy jaaye waaye doo mën a yokk. pompiteer moo gën a cher soble pour des fois nga gis ko sax problème lay doon. est-ce que ngeen koy togg muy bëri ko. non non lu yam rek la ñuy def. mel ni soble ngeen gën bi la. waaw soble la gis gën a utiliser comme pomme pomme de terre bi nii. a ngi ciy gis seen ah gisuñ ci suñ bopp moom dañoo nekk ay jaboot rek bañ a toog. loolu moo tax mais gisuñ suñ bopp moom. Abdou ñëw nañ ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen waa Info 7 di leen jaajëfal ci liggéey bi am na solo waaw ñun commerçant yi moom bagage yi jamono ji moom seer na trop trop trop trop période bii ñu tombé rawatina li nga xam ni moom moo di ceeb ak diwlin te ko wax ceeb ak diwlin xam ni sénégalais yi lépp ci lu ñuy dundee muy ceeb ak diwlin. ndax euh, boolu ceeb moom daanaka une fu mu jotee wala deux heures foo dem rek incha allah da ko fay fekk ba tax na daal dund googu moom metti na lool lool lool sa bidon diw mi jar ay vingt deux mille cinq cent ceeb fi mu toll ni mi ngi jar ay ay dix huit mille xam nga loolu metti na par rapport ak bu njëkkoon et puis tamit euh, marché bi euh, ni mu doon marché noonu dafa wàññeeku ndax xam nga ni buñ jógee ci li nga xam ne moom moo di màggal ak li nga xam ne moom mooy gàmmu daanaka ni mu doon marché noonu noonu day xaw a ba tax na bagage yi tamit bu chéré clients yi bu bu seen poos xawee woyof tuuti daanaka dañuy économiser di wàññi seen ndugg di taqale daal ba génn si. waaw soble si moom cher na lool moom pompiteer bi cher nañ torop moom wax dëgg yàlla bu mënoon a ñun ñii jaaykat yi dina baax lool ndax ñun ñii jaaykat yi tamit bu ñuy jaay suñu client yi ñu jaay bu leen jaayee dañuy xeeb li leen jaay dañ naan li ngeen jaay dafa cher bu fi mu doon nii mburu laay jaay mais koo ci diwal danaan li ma jaay 100 la lay jaay danga naan li ma jaay cher na. kilo soble bi la toll. kilo soble mi ci 500 léeg-léeg nga gis ko la jaay 600 sax ah. waaw. torop pomiteer mi ngi ci 600 moom laay waxante kii nii mi ngi ci 600. seer la lool torop sax torop. bu ñu si ci mim réew nekk pomme terre nekk loo xamante ni cher na wala li ko war a moo cher lool mhm. waa yëf yi moo cher lool ca kaw la seeree ñu ñaan yàlla ci kaw rek ñoom tamit ñu oyofal tuuti rek ndax ñu ñi tamit di jëndkat yu ndaw yi di commerçant yu ndaw yi ñun tamit ñu mën cee gis suñu bopp waaw ñun xaaj lañu diwee cent franc lañu diwee waaw cent franc lañ ci diw waaw waaw mis bi xalaat diw 200 rek. torop sax torop. da ngay jaay ba da ngay jaay ba pare doo gis dara. ah gis nga de dafa cher. xaaj bi 100 francs lañ ciy def. waa man tam maa leen jaajëf ah. waaw di leen jaajëfal rek di leen wax ca kaw ca kanam rek. waaw lépp dina baax incha allah macha allah. waaye yëpp seer na diw seer na ceeb bi seer na. man yàlla jàmm am na ko jënd rek yëpp waa ñu ko jàmm rek. waaw ah, mooy sama xalaat daal waaw. waaw yow léegi lan ngay wax ñi nga xamante ni ñooy client yi nga xamante ni bagage bi cher na lool ba fu ñu toll dañu def perte loolu ñu wax. ah ñu gis ñu gis ñu def noonu rek ñu gis ñu jàpp ko noonu rek du yàgg lee mu jeex du yàgg diggante rek la day jeex du yàgg sax lee mu jeex ay diggante rek la waaw. Ah. Hmm? gouvernement bi. xam nga jàpp si bu dund bi nga wàññi rek dund bi nga yomb bu nga ko wàññi baax rek. ba ci nëbën ah est-ce que si bagage bi kon moo yokk rek moo tax lépp yokk rek ah waaw ka da trop ah ay saako ay saako onze mille cinq cent ah, douze mille moom la seen trop par rapport bi am boobu indien kilo indien indien bi la indien bi la woon pomme de terre indien bi moom la woon boobu ay saako sept mille huit cent huit mille ah. waaw den seen liggéey ko waa rafet na trop surtout sa Mor Diouf sëñ Mor Diouf El Hadj Mor Diouf di ko sant bu baax di ko rafetlu si liggéeyam ak yàlla jëmale kanam baax liggéey bi ci bàkk Sëñ Tuubaa sagalaa xëyra waaw merci. waaw ñun commerçant yi moom bagage yi jamono ji moom seer na trop trop trop trop période bii ñu tombé la rawatina li nga xam ne moom moo di ceeb ak diwlin te ko wax ceeb ak diwlin xam ni sénégalais yi lépp ci lu ñuy dundee muy ceeb ak diwlin ndax euh, boolu ceeb moom daanaka une heure fu mu jotee wala deux heures foo dem rek incha allah da nga ko fay fekk ba tax na daal dund googu moom metti na lool lool lool sa bidon diw mi ngi jar ay vingt deux mille cinq fi mu toll mi ngi jar ay ay dix huit mille xam nga loolu metti na par rapport ak bu njëkkoon et tamit euh, marché bi euh, ni mu doon marché noonu dafa wàññeeku ndax xam nga ni buñ jógee ci li nga xam ne moom moo di màggal ak li nga xam ne moom mooy gàmmu daanaka ni mu doon marché noonu noonu day xaw a wàññeeku ba tax na bagage yi tamit bu chere client yi bu bu seen poos xawee woyof tuuti daanaka dañuy économiser di wàññi seen ndugg di taqale daal ba génn si nga xam ne daal métti na trop fi mu toll nii moom métti na lool lool ci commerçant yi ak ñi nga xam ni ñoom ñooy client yi. waaw soble bi moom bu tubaab bi instant yi day jar ay huit mille cinq cent huit mille yooyu pomme de terre moom xaw na cher moom ndax. importe bi moom mooy ñëw bi nga xam ne moom mooy jóge bitim réew xam nga boobu moom moo gën a cher bi day jar ay douze mille cinq cent actuellement nii ci marché bi euh, ba tax na daal ñi nga xam ne ñoom ñooy clients yi tamit ñoom war nañuy comprendre li nga xam mooy bagage yi waaye lu ëpp ñoom dañ koy euh, teg ci suñu bu ndodd jàpp ni ñun ñun commerçant yi ñun ñoo ko cher. loo jaay loo am bénéfice da nga koy nduggee après nga daal di toog commencé waat à yow da ngay dem ba ne damaa war a toog sax parce que li ngay liggéey gisoo sa bopp ndax loo jaay. boo génnee say fere boo desee 500 bëri na soo ci génnee say paas ak say fere doo dese dara. a ah, xanaa ñu wàññi ko rek dimbale population bi xam ne sonn nañ borom kër yi sonn nañ ñun jigéen ñi sonn nañ parce que dañoo yor suñu ay doom yor suñu ay njaboot bëgg dimbale suñuy borom kër ak ouverture école yi nii nga bëgg a say xale jëndal leen ay fourniture bëgg a ne yor sa bopp. ak soo ayee nga bëgg a dolli sa cin xam nga loolu dafa cher te borom kër yi moom fi mu ne nii ñoo gën a sonn ndax lu ñu la jox rek di nga si teg lu ëpp loolu te soo ko amul faaw da koy jéem a taxale dafa metti. foo ko takk na ko waaye nag moom mm, kiimaan la daal moom daal xam naa kenn xamul daal ci kaw la kenn xamul ci suuf la kenn xamul daal lu ko waral. waaw seer na waaye nag euh, mënta ba a seer ndax li tax gënut waaye ñun lu ñuy lu ñu am bu dul importé defe nañ ne du bagage ah. Ah. Euh, maanaam ñi jéem a xool nu ñu créé loo xamante ne nii bu dee aw jiw la woo xam ne ñu mën a traité fii la mën a ñor mu mën a doyit fii. ñu amit ay emploi yoo xam ne dañ leen fi jël ñuy liggéey su ma rii loolu la ñuy teg ci bagage yi ñun tamit bu ñëwee faaw ñu teg ci benn juróom wala benn ñaar dërëm daal di jaayaat waaw daal di am dara mais xam nga euh, loolu ñu naan ndonga euh, euh, sëgg fu dara néewoon nag baaxul wax dëgg yàlla metti na moom affaire yi moom metti na ci ñëpp la état bi daal waaw am na différence mais bokkul ndax pomme de terre bi fi nekkoon boobu noonu boobu local bi la woon bii bu France bila bii moom moo gën a normal.